seetaan wasaare lamb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbég mbokk yi comme ni ñu leen koy defalee saa su ne démb defal nañ leen ko ci Madji Madji tey open press Angleterre la ñu ngi fii ci Parcelles Assainies kaay xale baa ngi noonu di ñëw maya Angleterre la solde bu rouge ban cey lamb xale baa ngi noonu di ñëw Angleterre a ngi noonu di ñëw Serigne Bass sol na maya Angleterre xool koog bi hey làmb diggante moog màcc màcc du combat bu yomb Ouzin production mi ko tëgg le 7 mars la fële ca arène waa parcelle yaa ngi nii doomu ndeyu Angleterre yaa ngi nii Garga Mbossé ngi noonu Moussa Balla Gaye ngi noonu métro mu ngi noonu Boy Faye nga noonu ndeysaan xale yaa ngi noonu tey lam coow lay commencé waaye ci coow lay jeexee ma ngay wax de ña ngay dajji mbuusu di ko wisal ma nga yor benn galañ bu xonk ci loxo ba loxo càmmuñ ba moom Angleterre ma ngay njaab dugg na baa ngi noonu cey lamb yaakaar la ci Parcelles Assainies xale la yaa ngi noonu kookoy bébé garga ndeysaan wàcckat yaa ngi noonu wane na ni mooy bëre wane na doomu ndeyam mooy bëre wana na ne parcelle benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar yéen bokk écurie bokk dëkk parcelle ban yëg-yëg nga ci am. waaw kontaan si bu baax di ko ñaanal ndam nag parce que Anglais tàngal mul kenn kenn waru ko tàngamlu grand bu la di ko ñaanal ndam si barke Seydina di ko tubbee suñu xol nag ndam bu seddu guy ta gaaw nu mu yombee ci moom rek xeeb nañ ko waaw ndam daal lañ ko bëggal ak ndam bu mën a doon yàlla na ko yàlla may ndam parce que li ñuy wax ni suñu xol ko tibbee di koy wax Angleterre dafa baax bu tàngamlu kenn liggéey na li bu bis ba dañ ko gunge ñun ñëpp dóor dóoraat kenn du des ñëpp ay dem bu soobee yàlla yàlla na ko may ndam xam nga ki muy bëreel maaji maaji maaji maaji maaji maaji mi xam nga ko xam naa parce que nañ bëri nañ maak xam nañ bu baax préparé nañ xam nañ lu bari ci moom di xam nañ Angleterre tamit préparé nañ ko li nga xam ne nii bu ñu ko préparé combat bi déroulé noonu yàlla nañu may ndam incha allah maaji maaji daf ko xamal ni daa dugg dóor dóoraat am defet nga daan ko mu duggaat dóor dóoraat la ko daloon ci yow moom la rectifier ci kaw Angleterre. xalaat naa lu ko raw lu ko raw parce que comprendre bi ma koy daan comprendre te bii aussi du comprendre incha allahu rabi Angleterre na ko daan waaw. jaajëf gars siyaar maa lay siyaar maam mu dëkk bi waaw oui sant yàlla bu wér tey ngeen ñëw seen bisu grand leet naa di bëre Angleterre bu dóor dóoraat ban préparation ngeen préparé combat bi. waaw combat bi ñu ngi koy préparé ba mu taxawee ba tey ñu ngi préparé ànd ak bi Angleterre di yeewu fajar dem di ñëw école di contact di ko ñaanal nag ndam gannaaw mu ñàkk i ñaan la barki sëñ Bamba moo tax gaa yëpp nga gis fi ay gar garga ay euh, booy fay gaa yëpp nga gis leen fi ku ñàkk i ñaan la ku am sa bis taxawu na si waaw ku am sa bis taxaw na di ko ñaanal yàlla nag mu am si ndam lu kawe njortam waaw loolu lañ koy ñaanal waa Pape yëpp ñu ngi si ginnaaw géejawaay xamal nañ me na majj majj bu ko jàppee dina ko duma dina ko daan est-ce que dina yomb ci moom non du yomb si moom ndax moom grand frère la quoi majj majj grand frère anglais moo ko gën a nekk xale majj majj mu ngi ci état de forme bu garaaw non si loolu am na ndax ñun bëgg nañ kuy anglais di bëral la nga nekk si état bëgg nañ loolu moom anglais dafa nekk si état si way jaajëf Garga Mbossé daa mel ni waaw sama xol doxul de sama xol a sedd. lu sedd sa xol. non dafa sori ci man. billaahi li ma ko yéene yàlla rek moo ko xam. billaahi wallaahi. mu dugg ci combat boo xamante ne bu garaaw la ci moom. sortem bu mujj da koo ñàkk digganteem ak Caaka Fay bi yoon mu jëlaat Madji Madji lan moo tax mu jël Madji Madji mbax nee nañ Madji Madji ñëpp dañ ko fee bàyyi angale jël ko. waa sport de combat moom fii la ba pare leneen li doog a ñëw jóge ci victoire jóge ci défaite. warul jouer ci esprit sportif bu tollee fenn fi man gisuma loolu combat bu am maanaa la jël bu am solo ci carrière am ñu ko ñaanal yàlla may ko ci ndam point. démb damaa dem géejawaay ñëpp ne ma diggante Madji Madji ak Angleterre seen combat la muy Lac de Guiers muy Alioune Seye muy mbëru géejawaay yëpp ma ñëw fii tamit fekk parcelle gépp dajaloo doon benn daa mel ne parcelle benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar. Angleterre mooy dóor dóoraat Angleterre mooy dóor dóoraat. parcelle waxaale wu ma ko mais ku ma xam-xam ne Angleterre mooy dóor dóoraat fa laa yem. combat bi nu ngeen kay waajee. non ñaar yàlla yàlla may ndam rek. li si des yëpp nañu ko bàyyi si yoo yàlla wax ju bëri yëpp jaratu ko combat bu dem ba taw dernier virage ñaar mbër mi ndam rek mais entraîné na ku xool Angleterre xam ne macha allah yàlla na ko yàlla may ndam. oto lu mu fees fees nuyul ma sama yaay xaj na ci Sa Thiès nee na yéen ñaar ba Real ak Atlético yow yaay Atlético moom. à suivre à suivre. loolu leer na maa ngi lay fay. dëkk bi wax. waaw a baax di bëre ma ñëw gis la ñu gën laa gis ci làmb ñii nee nañ bàyyi ñii nee nañ ban préparation ngeen préparé combat non lu leer lu leer lañ def instant lu leer la nga xam ne bu ci ku ne dina ko gis quoi waaw lu leer la pratiquement ji ëpp doole bu ñu xeexee mu duma ko bu ñu bëree mu daan non ñun ki yor moom xanaa leneen lay wax mais ëpp doole moom mënu moo gis ama gisuma ñu eggee dina moom ñoo ko mën ñoo ko mën Angleterre nu muy waajee day xeex wala day bëre non lépp lay bi laaj rek mooy MC Niambi bu dóor dóoraat képp kuy bëre ànd na yow ànd na ak Zos ànd na ak Garga Mbossé ànd na Jëf Jël ànd na ak Cartouche ànd na moom ci làmb la bokk waaw waaw. dëgg baa ngi rek. yaa ngi ci jàmm. sant naa bu wér-wér. ma ñëw fekk la ci open press Angleterre. seen liet naa ban yëg-yëg nga ci sama grand frère la. sama mag la. nitu jàmm la. moo tax bu amee bés ñu ñëpp dañoo war a teew. ñu ngi ñu jiital ci ñëw bi nag ñun ñëpp Garga Mbossé moo ñu jiital. ndax sunu grand frère moom it jëlee jàmm. lu baax rek lay am. te maa ngi koy ñaanal yàlla mu dóor màcc màcc mu daanu. est-ce que mën na dóor mu daanu ndax màcc màcc mi ma gis démb état de forme bi mu ne du moroomu benn xale Angleterre du xale ba mu ñëwee ci làmb du tay ñu ñi ñëpp moo jiit ci làmb ay ndaw lañu xëy na li ñuy wax làmb dafa am moo ko téye mais Angale ku dul màjj màjj mën na laa duma daan la làmb tël di rek mais Angale heure bi war woo nekk billaay wallaay taalaay. maa ngi fi am nga combat. waaw le 13 avril. lool moo tin lañ koy wax ñu koy wax bodi. moo tin mu mën a dóor. lu la dugal ci mut xeex jaaxaluma bu doon xeex dong kon ma yaakaar ne du ma yegg si làmb damay continuer di xeex ku xam Bébé Garga xam ko ay loxoom moom macha allah yàlla yàlla bu jeddu mais nag moo ci mbër la mooy mbër làmb moo ñu boole rek ma am tardement bu ndaw mais yàlla xam na ne du sax maag moom li nekk sama xel mi nekku ci xelam. jaajëf. Asal Asani. jërë ngeen jëf waa mbokki inte 1 inte 2 inte 3 mbokk yi démb demaloon nañ leen seet si leen kii di Madji Madji journée Ouzin production le 7 mars fële ci arène nationale grand combat bi dox ci diggante Madji Madji bu waalo ak Angleterre bu dóor dóoraat démb Angleterre Madji Madji moo doon def open press am tey ngay def open press ñu ñëw fekk fi l' ensemble dóor dóoraat bépp ñu nuyoo nuyu la bàyyi la nga nuyoo mbokk internet ak àdduna bi lay seetaan Angleterre ñu ngi lay nuyu. waaw salaam salaam salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk làmb yi. teel teel teel teel. gannaaw ba ma sant yàlla julli si yonent gërëm samay waajur. waaw maa ngi sant ñëpp di sant parcelle unité bi ma dëkk maa ngi sant ñëpp bàyyiwuma kenn parce que lii yombul quoi nga xewle booy yëpp génn def mobilisation def seen doole daj say coono chaque jour duñu nelaw guddeeg bëccëg fu ne ñoo ngi fay dugg kon booy waa Jakaarloo booy waa unité booy waa studio booy waa Feeraay waa Dégg Jàmm waa Faja maanaam booy aw ma fay booy aw ma seen fay booy dañoo sonn si mbir mi waaye nag li mu leen fayee rek mooy la samedi la set ma daan majj majj jël bu set wecc wecc wecc te gaaw. sa combat yaag majj majj nan nga koy préparé ñaata combat ñaata séance nga doon entraîné par jour ndax majj majj bi ñu ko seetee nee dijj dëgër ko gën nee na yaa ko ëpp bool booli mais moo la ëpp doole te bu arbitre sifflé dina la ko wan. waaw mais moom xalaatam rek la wax man en tout li ma doon liggéey maa ngi ko doon liggéey. ak xel mu dal maa ngi doon liggéey maa doon liggéey man daal maanaam entraînement yi aw ma si woon app aw ma si woon jour aw ma si woon samedi aw ma si woon dimanche maa doon liggéey li ma waroon liggéey li ma daan liggéey su ma su ma amee combat moom laa doon liggéey te xam naa li ma liggéey nii bu soobee suñu borom mun na maa may ndam. Angleterre maaji maaji nee na Angleterre du Angleterre pomme de terre la. nee na yow pompiteer nga bu arbitre prime daf lay ñaan nga dëggal sa bopp nga taxaw bis boo taxawee foo nekk dina la fekk ndax moo la ëpp doole kuy contact ak Lac de Guiers 2 di contact ak Alioune Seye du ko jaaxal. moom loolu muy wax noonu la de Guiers 2 Lac de ëpp ma doole Alioune Seye moom mi wax ëpp ñu ma doole lam moo tëra di rek Lac sama doomu ndey Garga Mbossé ngi bii moo ko mën fuuf moo mën Lac de Guiers na jël avance boobu. dégg naa li mu wax yëpp ci affaire yi mais du ma ci sori mais en tout daal lu mu ak lu mu mën a am ak lu mën a am bu soobee yàlla naa ko daan waaw. nee na dafa dugg dóor dóoraat Moussa Balla Gaye daan ko mu ñëw pour rectifier erreur bi mu defoon ci diggante mu Moustapha Moussa Balla yow bu arbitre ne prip loo préparé ci combat bi da ngay moom wala da ngay xeex ak moom. non làmb ji lu mu laaj rek man xam ne man ku ma xam xam ne damay xeex damay bëre ñaar yëpp làmb ji moom bu mu ci xalaat sax mu sedd ak wala mu nooy. bu mu si xalaat lool na xalaat ne naa xeex ak moom dinaa bëre ak moom bu soobee yàlla waaw. ma ñëw tey gis dóor dóoraat gépp ñëw nekk sa rawatina waa jàkkaarloo waa boolu dof feeraay ñëpp nekk sa ginnaaw mbaa du doon pression ci yow sa làmb non non amul jaaxle amul jaaxle ñooñu bu ñu nekkee sa ginnaaw boo jaaxle woon sax jaaxle day dañ man amul jaaxle laa man du ma jaaxle non non non non amul pression làmb nañ daan bëree rek. jaw jàpp ko daan ko dem seeti leneen parce que xam rek làmb moo tëradi moom xam war na xam loolu sax parce que man bëri naa fi ay grand combat moom moo ngi doog a bëri grand combat mu xam loolu maa ko dimbali ba muy bëri grand combat waaw na sant si loolu quoi waaw. monsieur mi foo toll ci couverture maladie universelle. waaw ndax nee woon keroog di bindu say xale. moom it nee na dina jël nombre ay xale bindu leen yow foo toll ci loolu. waaw liste bee ngi fi liste man sama liste moo ngi fi ñi ma war a inscrire parce que c'est normal quoi parce que lii occasion la suñu si population Sénégal Sénégal yëpp feebar faju yombul. yombul fu mu toll ni bula la gouvernement bi jëlalee 3 pour cent wala ñaata 6 pour cent xaw ma looy dese 2 pour cent ngay fay. kon loolu yombul dañu siy wastu àq bu baax a baax kay si inscrire suñu bopp inscrire suñuy fan club inscrire suñuy waajur parce que yombul quoi. boo jugee mbooloo mu bari dañuy jóg ànd ak yow foo toll ci sensibiliser ñi nga xamante ne ñooy ànd ak yow ci non àlla la violence. waaw man sam mbooy yi de wax dëgg yàlla ñëpp xam nañ sam mbooy mosuñu leen yàgg nañoo demal Garga mais mosoo dégg ñu ñu yàq làmb yàgg nañoo demal Jos mosoo dégg ñu làq làmb kon yaakaar naa ne booy nañu meloon démb moom lañ mayal tey quoi ñoon booy jaruñoo ñaax sax parce que duñu duñu yàq làmb xamewuñu leen ko mos nga dégg waa parcelle fu ñu yàq fu ñu tojee làmb ñun làmb ji toj na parcelle waa parcelle ko toj mosoo koo dégg kon xam naa ne booy ñoom mooy loolu quoi booy sa sa mobilisation ci toll waaw mobilisation bi mun naa ne pare naa parce que li ma li nii nii man gëm naa ne mosuma ko mobiliser si làmb li ma mobiliser nii nii si combat mosuma ko mobiliser si làmb mais bu jour ça la certes si ngay comprendre ne mobilisation bi ma doon wax ak réussir na incha allah. bii mooy sa deuxième grand combat sa premier grand combat da nga koo bëre woon ak mu daan la bii nga amaat majji majji mbaa du doon pression ci yow ci bëre ak euh, li mu nekk grand combat ci yow. non non non non déggoo lu mu la bëri nañ grand combat kay amul jaaxle ñun duñ jaaxle ñu loolu jaaxaluñ parce que bëri yàgg nañ ci géew daal mbapat nañ ba ba tas doog a dugg kon loolu jaaxaluñ non non non maaji maaji man ñam caaka ñoo ko gën a ñaanga ñam Kaaw Cissé ñam Ahmed Bombardier ñoo ñoo ko gën a ñaanga foofu kon loolu man du doon pression mënul doon pression si man quoi amul jaaxle booyee ngi nii sama ginnaaw amul jaaxle amul jaaxle de incha allah. ñu bàyyi la nga woote woo ñëpp ñi nga xamante ne dañ lay jàppal ci combat bi rendez-vous le 7 mars arène nationale. waaw damay woo Moussa Diop sama DG. première chose Moussa Diop ñoom Ndeene dama leen di woo ñoom rek waa Dakar dem dëkk ñëpp laa woo ci combat ñu ñëw jàpp seen combat bi jàpp nañ nañ luñ ci a lu ñu gën a yokk jàpp bi man mu gënal ma quoi parce que daa am lu ma fas yéene te mu soobee yàlla su boobaa lañ koy xam maa ngi profité di sant waa Inte 3 fii ma dëkk parce que amu aw ma seen fay gis naa booy seen taxawaay gis naa ko ñoom Papi Seen ñoom sama fils Papa Ndiago Ous Bébé waa fa jàkkaarloo boo yëpp daal bàyyiwuma kenn feeraay ñoom koñ ñoom baylaat usmaan Ndiaye ñoom ñëpp gis naa baylaat di sant Thierno Amadou di sant euh, Thierno Sila waaw maa ngi koy sant bu baax Thierno Khalifa Gueye Boga njaay ñoom ñëpp maa ngi leen sant Lamine Massa maa ngi koy sant jox na ma xaalis bu bëri daan sama doom nday Garga Mbossé mais si ginnaaw maa ngi koy sant bu baax Dieng Faye maa ngi koy sant baylaat Ndiaye Ousmane Ndiaye garga mboose mii si ginnaaw aw ma fayam ñoom bébé Zos boo yi taxaw nii yëpp ñoom Thierno Sylla dis preuve maa ngi sant Modou taxawaayam gis nañ ko même ba si Papa Sow Franc Goro parce que ñoom it donte ñëwuñu nii woo nañ ma am na lu ñu wax ak man kon maa ngi dama leen sant di sant 100 pour cent parcelle bi maa ngi sant ñëpp di sant Rick Cheikh Diouf sama doom nday Rick parce que gis naa taxawaay bi parce que booy. Madji Madji lan nga koy mujjee wax ci jàkkaarloo bi mu mujjee jàkkaarloo yow ñu bàyyi sant gi ba la set incha allah arène nationale. non sant bi foog ñu def ko quoi may ma tuuti rek sant bi foog ñu def ko parce que sant bi. Euh, sant bi xool caméra bi wax ak moom sant bi a ñàkk ñu jàppale si bi dafa bëri. jàppale bi ñu si am mosuñu ko am si jàppale di woo waa doole waa ECHO parcelle équipe yi fi ne yëpp ñoo ngi leen di woo waa Cambérène gis naa seen taxawaay tamit quoi si combat bi waaw. Madj lan nga koy mujjee wax mu téye ko jàppandi ci ba le 7 mars incha allah arène nationale. non ma ma ma Madj Madj siin laa ko jëmee siin. siin la lu ma xew. siin balaa ko jëmee de siin de laa jëm ak moom siin. siin da ab jàngoro fa am de. foofu laa jëm moom nag siin laa jëm moom siin populaire fa laa jëm moom waaw jaajëf kon Angleterre waaw maa ngi sant naa ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp waaw waaw koñ bi di sant Baboye di sant Amadou Ba di sant ñëpp daal gis naa taxawaay combat bi daal waa parcelle la ko moom woo naa ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp na ñëpp ñëw maa ngi sant maam Ngondo Fall di sant maam Lamp Fall gis bi di sant Baye Fall di sant sama soosey nag mbaani mbaani mbaal kontaan mbaal jay la nañu ko mba mu ko amanke ko mba dende lafta alliance so duwala fam fam fam fam fam fon boy maji maji fon boy alliance so duwala karanta ba sandinière kata jarin kata mak kuli bantan Euh, meya fara kata mak kulibanta kata bakataje kata karantaba kata euh, jannaba sejo sandiñar alin so do ala fam fan si mbay boy maje maje le 7 mars inshallah so say maje am na problème